gis ngeen alxalqa taasia a ngi noonu juróom-ñeenteel xalqa bi gis ngeen nii ci bii passé Youssouf noonu ñu ko yégaloon fas yu daa jékki-jékki rek gisatuñ ko ndax gis nga Youssouf xale boobu Ibrahim gisuma ko de xanaa daan doon ak yow fi ma demee féetee ginnaaw jamaa jékki-jékki gisatuma ko lu xew falix daal nee na ma woon su mu xale bi sànkoo dana ma mbugal mbugal mu metti mu ngi wër ba tey moom lañ denkoon Yuusuf ah xool na ca xabru ba est-ce que nekk na fi ah gis na ko nag ma nga sëgg ca xabru ba ndekk te xabru boobu mooy xabru yaayam ma ngay jooy rek allahu akbar xabru boobu lañ denc yaayam ma ngay jooy jooy metti da ngaa dawoon yow wala nu mu mujjee ak moom allahu akbar yaakaar nga ni yaakaar nga ni mën nga maa rëcc ah oh, bàyyi yëg na ko ca dëkk ba baay ji yëg na ko ca xolam dóor yooyu ñu dóor doom ja allahu akbar lan moo ma dal lan moo tax sama xol bi yëngatu ni ma tiit ah sama soppe ba Yuusuf jafe-jafe laal na ko de loolu laa yëg lu xew yonent yàlla bi Yuusuf nekkul ci niñ ko bëggee woon de am na lu xew de xoolal rek sama soppe bi Yuusuf nekkul ci jàmm subhaanak ah ma ngay nàcc deretu yonent kenn du ko tuur dinaa la yar dinaa la yar ba dootoo dawaat dootoo jéem a dawaat sama sama kii neewoon na ma warkat nga dinaa dinaa takk say tànk ba dootoo daw dootoo mën a daw ah xàcc na bay dóoraat deret ja tuuru na waaye xàcc na bay dóoraat loxo ba bañ na am na lu téye loxo ba de deret kay lii mënta nekk lii mënta nekk saa loxo bi ay saa loxo bi ah xool na boroomam allahu akbar foofu nag takallama bi xaalihi lisaanul xaal walaysa lisaanul maqaal bokk yi ñëw nañ lu xew lu xew loxo baa ngay gën a métti lu la sa loxo bi dalal ma xool lu nekk sa loxo bi xaw ma lu ma dal de xaw ma lu xew de man daal jekk-jekk rek métti bi dugg na sama loxo bi lee dal bu am bu la dalee am na lu tax amaana jaana la mat wala nga yenu lu diis rek mu sa loxo bi attanu bi may dox ci seen ginnaaw dama xool gisatuma xale bi nag ma xam ni daw na war naa ko fu nekk ma fekk ko fii ci miir bi mu làqat <laughs> ma door ko ba ma bëggee dooraat lekk la sama loxo bi daal di commencé seem muy metti ànd ak mettit da nga kaa doo da nga kaa dóor rek sa loxo bi kii ah, ah. xoola xoola xale bu tuuti bii nga koy mbéj xanaa xamoo ne yàlla moo la fayul moo ko fayul jën dañ koo jënd pour jaay ko waaye léegi bu amee benn ëy bu nekk ci moom duñ ko mën a jaayati nag nga koy dóor da moo tax nga daw yow xale bi man daw ma de lii saa xabru saa bàmmeelu yaay la damaa bëggoon a tàggu saa yaay subhaanaka ya rabbi allahu akbar subhaanaka ya rahman لكن قبور العبيد دوارس فضلا عن أن يكون لها شاهد waaw léegi bàmmeel yi nag ليس هذا قبر والدة عبد lii du du bàmmeelu jaam de way juru jaam tëddul fii de wax ma yaay kan dëggantaan am na lu xew looy nëbb wax ma yaay kan allahu akbar ndax mbéj bi mu la mbéj dala dafa metti ndeysaan ca ya rahmaan baa xam nga ni boo rëccoon balaa bi lay dal kii du xale bu kii dafa bëggoon a fayu rek nga yuuxu rek ndeysaan ndax da nga koo mere man man yaruñu yaruñu ma ci soxor ak ak mer. anta xale bu barkeel nga. soo ko baalee dinaa dinaa la tekki dootuma la takk soo ko baalee. ndax baa du ma du ma dóoraat kon su ma ko baalee. maa ngi waat ci yàlla Ibrahim ñëpp ma tere leen ñu bañ laa laalati. ndax ci ñi wéetal yàlla nga bokk. man Malik ibnu Zaar doomu Xayr man doomu Ismaayil la sëtu Ibrahim la maa ngi bokk ci sëti Ibrahim ya nga xam ni mooy doomu Ibrahim man maa Yuusuf doomu àggaleel bu tuddee bàyyi ja rek ñu bokk ñoom ñaar de ndax kii Ismaayil la ko jur man maay doomu teen bi <laughs> maay doomu teen ah doomu wax sa turu baay nee naa la man maay doomu teen bi ci de teen bi laa juddu démb ba bi ndaw benn yonent bu jógee ci yàlla moo ñëw wax ak moom li ngay wax dégguma ko de dégguma li ngay wax de soo bañee wax say mbir kon garaawul waaye baalal xale bi daal boo mënta wax sa bopp tamit baalal xale bi ndax dana ko baal amul problème baal naa ko léegi anta mubarak yow xale bu barkeel nga ma ngi koy tekki feddalil sa kóllëre sa digganteeg sa yaay bu ko defee boo noppeerek ñu daal boo paree ñu daal di dem allahu akbar mbokk yi tekki nañ ko nag kon mbuumub jaam gi ma nga ca yoon tekkee ko waaw waaj leen bu ko defee bu ci kanamee ñu dem léegi dañ koo may nag mu ziyaare yaayam ñaanal ko waaw salaamaaleykum ahla diyaari xawmin al muslimin wal muminin wa nahnu insha allahu bikum layiqun nadu allahu lana walakum ñaan googu mooy ñaanu boo demee ca bàmmeel nga ñaanal ña fa tëdd waaw ndeysaan mu ngi noonu di tàggatoog yaayam yaay tàggu naa la yaay maa lay ñaanal jàmm salaam yaay booy tàggu naa la ginnaaw bi ma desee di baayo tàqalikoog saa baay tàqalikoog saay mbokk ma ni woon naa fi jaar tàggatoog yaay yow tàggatoog yow sama yaay ah mbokk yaa ngi noonu nag wàññeeku na ña dellu nag bàyyi ñu ngi lay nuyu yàlla nga am jàmm bàyyi ñu ngi lay nuyu bàyyi ñu ngi lay nuyu est-ce que fay na leen ndax gis ngeen Yuusuf ndax da yaakaar ni dafa jaax lan moo tax ngeen seen ngeen am ay ay nàcc nàcc nii ah njabootu Yaaqub tey amatuñu jàmm amatuñu kii waaye ay till lañ mujj nekk rek. yéen yéen ñooñu yéenay till ya baax Yuusuf góor gi nag mere na leen cay yaa subhaanallah laa wi mii nag lañ ko dénkoon ndeysaan laa wi fasante woon naag yow kóllër dénk la Yuusuf bu dul woon man bu dul woon yow duma ko yebal mu ànd ak yéen lan moo tax nga sàggan ci sa mbokk mi sa rakk ji lan moo wax lan moo xew Yuusuf lan moo dal Yuusuf waxal yaay ji lan ngeen def ci Yuusuf duma ya waxal yow laay déglu waxal yal na yàlla rëbb leen ana Yuusuf mooy metti na de waxal ma dégg lan ngeen def Yuusuf bàyyil dóor yi yow la ya wax leen lu ngeen def Yuusuf bàyyil dóor yi say ndeysaan laa wi de moo ci gën a sonn moom ndeysaan ndeysaan laqad istawqafatni jumlatu xawaadis am na lu ma am na lu ma taxawloo nag bëgg naa ñu waxtaan ndax da ngeen dëppoog man ci xalaatam yéen dafa am bu ñu réerul woon kon ngelaw li ñëw du ñu agsi ci yoon wii bu jur gi bañul woon a taxaw ca teen ba kon duñu duñu danañ teel agsi ca du yeex bu du woon mar bi ak ndox mu néew yi kon duñ naan yii yëpp ci settantalug yàlla la mu wërsëgal ñu jaam bi ngir ñu man cee jaay ko am ci alal ju bari wërsëg dana la dikkal ca doo ko yëg sax mbir yi daal day tegaloo xew-xew yi di demandoo ba kera la nga xam ne yàlla sédd na la bés nga jot ci nag ci tukki bii nag xale bi nekk Ibrahima wërsëg la ci ñun woo xamee yàlla moo ñu ko wërsëgal xale bi ndeysaan cay gis ngeen day daawa boobu mu def wane na ni daal kéemtaan yi feeñ ci kii bi booy mu ngeen bokk ko jàng ñun ñëpp ngelaw la uppoon nag jur ga taxawoon ni du ñu romb teen baak ndox mu neex maak yooyu yëpp kon ay kéemtaan la yoo xam ni yàlla xéewal yooyu mi ñu ko jaarale ci xale bi kon nañ ci bokk jàngat waaye ka dóoroon Yuusuf ñu xool ko ay waay astar a ah, dimbali ma waay ay waay xettali ma sama loxo baa ngi metti waay ba tey loxo ba ay waay metti bi dana ma rey waay ay waay xettali ma astar astar xam ngeen mooy yàlla yi euh, ba ñuy commencé film ba foofu tàkkoon foofu ñuy doon jaamu xërëm yàlla jooju mooy mooy astar moom nag da ca am benn bu ndaw bu mu ko tuddee di ko di ko ñaan ay waay metti bi dana ma rey waay mbokk yi ñu xool fii nag Youssouf de daa mel dégg na jàmbatu waa ji ay waay Astar Astar yow xërëm si xettali ma waay ay waay xettali ma waay ñëpp a ngi nelaw allahu akbar ndax xërëm yi mooy xettaliwaate est-ce que xërëm yi mooy xettaliwaate mbokk yi ay waay Astar métti bi metti na waay ñu xool Youssouf nag lu muy def moom ku bari yërmande la ki yoo ko dooroon de kii yoo ko dumoon du may metti ñu xool lan la Youssouf di jëflanteeg ma ngi koy dégg rek mu naan Astar mu màgg mi xetali ma waay. ñëpp a ngi nelaw allahu akbar xale bu fees dell ak de nga ay waay dinaa dee ngir mettit wi waay mbokk yi ñu xool fii nag xool leen fii bu baax lu ko Yuusuf di wax ak lu mu koy ñaanal wala lu muy jëflanteeg moom cay xel ma dem deen ca leneen waaye xan xalaat ni ne war naa mën a xettali mën na koo mën a dimbali Falih gis na ni xale bi ko am yërmande la ndax mi ngi xool waa rek ca mënatula nelaw ngir mettitu waa ji waaye xool leen Yuusuf allahu akbar kan la jàkkaar lool boroomam subhaanahu wa taala fa seeni ko ñaanal daawatu axiika an zahril gayb mustajab yonent bi nee na boo ñaanalee sa mbokk fu mu la yëgul yàlla nangu ñaan gi kon ku ci nekk foo tollu yëgoo sa mbokk mu sori la mu jege la ñaanal ko yàlla ñaan gi nangu ba mooy première étape Yuusuf jël mu jaare ko ci atafakkur mooy xalaat digganteem ak boroomam ci mën-mënam ci kattanam waaye bala muy wax ñaan gi xoolal nelawal nañu waa ji faleex day nelaw du dégg dara ci ñaan gi allahu akbar waaye ñu xool faleex nelawam yi lan la koy jural moom tamit mu ngay gént xool leen faleex lan la gént allahu akbar gént na yuusuf nekk ci kaw giléem di dox ci àll bi aw niir tiim ko gis ngeen lu weex loolu niir waa ko tiim di ko fegal tàngooru naaj wi waaye yuusuf ndeysaan yéeg ci kaw kii bi muy dem lii la faleex gént ximmatul ula gis ngeen ni mu ko defalee ak ker fu mu romb it mu dund fu mu romb mu jur fu mu romb mu dund allahu akbar gént gu gàtt diggante bu gàtt faleex gént na loolu xool Yuusuf toog jàkkaarloog borom waajaa ngay jooy rek dinaa dee ci mettit ah mi ngi koy ñaanal allahuma rabba nnaas adabil ba washfi anta shaafi la shifaa illa shifaau shifaan la yugaadiru saqama allahuma rabba annaasi adabil basa washfi anta shaafi laa shifaa illa shifauk shifaan laa yugaadiru saqama deñ na bi sala sallam mu ni ñaan googu juróom-ñaari yoon boo ko defee fuy metti mu deñ allahu akbar yusuf ñaan na bi lisaanil xaal kenn yëggu ko loo def ba sama loxo bi wér wér nii teg loxo bi rek wax ndànk ci xolam mu ñaanal ko ah, sama loxo bi wér na de loo yef loo def yow Yusuf xamal ni man defuma dara defuma dara ni ni li may def la nit ñi def rek dama koo laal rek waaw dañ koy laal rek dama koo bo dama koo daal ma dama ne Malick jéem na waaye sottiwul amul benn njariñ yow nga jéem mu am waxal li nga def wax ñu ko secret bi loo ñaan allahu akbar wa nunazzilu min alqurani ma wa shifaan wa rahma ñaan gaa ngoog de allahuma rabba naas adhabil basi washu anta shaat yow gis naa la ngay xool ci asamaan si ndax dangaa bokk ci ñuy jaamu biddew yi est nit mën na est biddew mën nañ koo jaamu xanaa kon jant ngay jaamu ak weer wi jant bi day bëccëg bi weer wi di gudd génn guddi sama yàlla moo bind yooyu yëpp nga wax ak yeneen ak yeneen ku fi nekk ba faw moom ki de ki ki di kenn ñëpp jublu ko muy yàlla da nga may mel ni xale bu ndaw waaye da nga am jeneen yàlla ju junjul jaamu ñun yabdu annahu ilahun yuhibbu ah am naa sama yàlla ji xam naa bëgg na la sa yàlla ji sa du la du la gàcceel soo ko ñaanee waa ji waa yàlla ji ma gàddu woon nag est-ce que dina ma jëriñ man maa ngi doon am métit di ko ñaan mu may may mu mayu ma dara allahu akbar fóon na loxo ba sant naa la sant naa la sant naa la sant naa sama ruux gi doon na bëgg a ak métit أكرر إليك اعتذاري لتلك الصفعة التي صفعت dóor yi ma la dooroon baal ma ko dóor yi ma la dóor jéggal ma bu baax yow Yuusuf jéggal ma waaye nja dóor boobu jariñ na ma bu dee door bi nga ma dóor moo tax nga jariñu kon góor dóor ba am njëriñ man côté bii laa bokk xam naa seen yoon yëpp ولطالما كنت من أدلاء القوافل السيارة bokk naa it li ma daan diriger ay ay ay ay ay kon ay kii waaye yoon wi nga ñu teg daal kenn rek la mooy ki jubalaat muy yàlla yàlla mooy jubal ku ko neex ci jaamam yi allahu akbar moo fi bàyyi it mooy moo mooy bàyyi ku mooy maandu ci nit mu sànku dugal na daawa bi ci xolam mbir ma nekk na leer dugg ci xolu faleex faleex dégg na tawxiid ñu ko yoon wu nekk jaar naa fa ñu nekk gide naa leen waaye yoon wii ka ñu jaaxal na mun ko du man yàlla la kon journée ba jeex na falix am na lu nekk ci xel mi di ko travailler allahu akbar yëg na lu Malick sax yëgul xale bi xaw ma ko de waaye guddi wax na ma wax yoo xam ne daf maa faj jëm relation bi mu am ak boroomam kii xale bi amana nitu yàlla la moom kay mënut a bañ a nekk waliyu waxoon naa leen ni dina wér bu ko Yuusuf baale léegi nag gént gi man dama koo gént ci gi nelaw mu yéeg fu mu fu mu jàll rek mu daal di ma mu daal di judd ah amaana yàlla yi muy kenn la yàlla ku gaaw a fay jaamam la waaye ku la ki la nga tooñ su la baalee yàlla daf lay baal encore lool laa xam man foofu nga mën a yem yow <laughs> ah ndeysaan nee na ko biig daal damaa gént fu mu jaar rek ñax mi daal di màgg daal di nekk ay garab لطالما كانت هذه البقعة خضراء fii yëpp daa daa daa daa daa daa المطر تهدد fii daraan daraan àll bi yëpp daraan daraan naat waaye ndox mi daa jékki-jékki rek ah arrêté fi amatul da القحط واليباس bu taw bi wàccul day bekkoor bi danañu rey ñaanal ndox mi wàcc allahu akbar yàlla day ku ku baat ku bari yërmande la ku ñeewante la Seydi Malick Malick ahadul musafirin haluhu sayyi kenn kenn kenn ci ñi tukki kenn ci ñi ànd ak ñun ci tukki bi kooku feebaram metti na lool ñëwal xool ko ah Yuusuf génnaat na allahu akbar <laughs> xooleen góor gi ndeysaan kii daa feebar de ay fan waaye feebar day gën a tar daa gën a tar tey kii ni mu baaxul de ndeysaan araahu yalfidu anfasahu al daa mel ni day sukuraat de la amala bi baqaa'i man aw ma aw ma yaakaar ci moom kii day dee kon nañ def dara waruñu koo bàyyi mu dee noonu de ah xale bi lu mu wax hayyu lahu sariran préparé leen ko ab lal irbitu sarira bi daal léegi jël leen lal bi ngeen teg ko ci benn benn mbaam rek ngeen gaaw Yusuf ci xelam nee na xale bi dina foon de ak dund ci loxo yàlla nekk moom rek mooy rey mooy bu gis nga loolu ndànk la koy wax ci xelam waxee ko ci kaw takk nañ ko ci wutal nañ ko ñu ko tëral takk ko ci mbaam mi muy dem ah, waaye ñu xool Yuusuf nu muy def gis nga de xale bi xale bi demal man damay dee tey kenn mënumaa tere dee demal ma dinaa dee deegu gaaw man dinaa nekk tax nekk sa wet incha allah di wér dee ak dund ci loxo yàlla dong la nekk bul ñàkk yaakaar ci suñ borom cey allahu akbar gis nga moom yërmande ja waratul dafay dox waaye wéttali ko góor gi kon mag bu tawatee na ko ñëpp jàppale mag bu duggee ak mag màgget na nañuy am ñu koy taxaw ndax loolu yàlla da lay fay ëllëg ci it ëllëg boo màgg-màgg rek loo sonn sonn yàlla wut ñu la taxaw mag ñaar yooyu la soxla dafa bëgg bu ay atam soree nga taxaw ko waaye ku feebar tamit nga taxaw ko dafa baax loolu lu tax nga taxoo góor gi tere naa ko waaye nee na du taxale ko góor gi de man mënu ma koo bàyyi moom dong nag bàyyi ma taxoo moom rek waaye feebar feebar mënoo cee def dara feebar mënoo cee yàlla bëgg na koy dimbali mbokkum jullit mbokkam bu leen bu leen ñàkk yaakaar bu leen jaaxle kon yow dee ko bàyyi xel parce que mën naa rëcc bàyyil xel xale bi de <laughs> day saar gis ngeen Yuusuf ci yërmande ji taxoo ak mag ak am solo mag taqoog moom dafa baax waaye ñu xool Yuusuf moom mag mi seet tet tet xool ko rek xool ko rek muy raay rek di ñaan ca kenn du yëg اللهم رب الناس أذب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما yàlla yow mi nga xam ni yaay boroom nit ñi yaay dindi aw tiis ñu ngi lay ñaan nga dindi tiis wi nga saafara way tawat ji ndaxte kat sa sa tawat sa sa saafara si saafara la soo xam ni yaram moomu jaar du fa bàyyi benn métit du fa bàyyi benn feebar leen ñaan googu allahuma rabbana adhab al ba'sa washfi anta shaafi laa shifaa illa shifaa'uk shifaan laa yughadiru saqama juróom ñaari yoon nga ëf ko fii metti rek incha allah mu wér xooleen ñaanal na ko góor ga jug na <laughs> faleex kaay xool góor gi wér na Yuusuf ñaanal ko bu yàgg góor gi wér na ma ngay dox mucc na ci dee gi waxoon de allahu akbar góor gi wér nga waaw waaw alhamdulilah wér naa peeg nga ah yaa ko faj yow man mii man am nga koo fajoon léegi kii yaa ko fajoon yaa fi yàllaay faj man damaa ñaan rek allahu akbar Malick ñëwal gaaw allahu akbar waa ji wér na ñëwaral sa bopp nga xool waa ji wér na mi ngi doxi soxlaam salla alayka allah ya rasulallah lan moo tax nga gaaw taqoog moom ma maa ngi woyam rek yow dangay ngay gidd nga mën may gidd ca gidd bi gën mooy mu nga fexe ba ka ngay gidd àgg fa mu jëm kooku nag beneen maqaala la ka ngay gidde fexe ba mu àgg fexe da leen àggale ci yàlla ndànk-ndànk ca duñ ko yëg kon ñaari giddi bokk lu xew fii yuusuf sàkku na ci man ma ma wàcc lal bi daal di dox ndax ma dox ba mu ba nee ma jugal rek ma daal di jug dox rek maa ngi nii di dox wér naa alhamdulilah cay falix allahu akbar ah mbokk yi gis nga day beneen a ngoog waaye lu ñu wax mu jiñ ko yàlla wax ma lu xew ndax wér nga waxal man sama sama ruux ak sama dund del siwaat na bu dul bu taqawuloon ak man di ma ñaanal kon damay de kon damay de ku ci nekk mën naa ànd ak yow man def man def ma dara kii doon waaja dee ñun doon nañ ko xaw ma daal jan yàlla mooy sa yàlla waaye xam naa bu baax ne xam naa ne fanaanoo naa xam ni yàlla ku am ku man lépp la yow nag yàlla dégg na sag ñaan dégg naa ngay ñaan yàlla biig ci guddi sa ñaan gii moo ma génn ci melokaan yu metti ma nekk woon yóbbu ma ci melokaanu jam ak salaam wér naa sa yàlla ci waaw waaw la ñaan na yàlla may ko mu ni du man ay Malick nee na ayoo nañ leen départ nee na du man de damaa def damaa ñaan rek dama man defuma dara yàlla mooy faj gis nga ndeysaan kon ñaanal na ko mbokk yi ñaan dafa am solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na addu'a muxul ibada ñaan mooy yuur jaamu yàlla gis nga ni yuur di li yuur di représenté ci jëmmi doomu aadama nga xam ne bu doomu aadama amul yuur dootul mën a nekk ñaan noonu lay présenté ci dund nit day defar si dund ndax subhaanahu wa taala nee na woon qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'aakum nee leen seen borom nee na du leen faale bu ngeen ko dul ñaan xoolin yusuf intalaqa min marxalati alximaar wa intalaqa ila marxalati al aala jële nañ ko dootul war mbaam ma nga ca kaw fas waaye ndox maa ngi wàcc it maa ur maa ngi noonu ndeysaan cay xale bi xale bi ndox mi wàcc mi ngi wàcc ci barke bi xale bi allahu akbar ma ngay gën a taaru rek waaye di bàyyi gën a bàyyi xel yàlla léppam da koy def sa riyan du ca feeñ du ngistal du def dara ñu ni jaamu yàlla bi gën mooy jaamu yàlla boo xam ne sa diggante ak sa boroom la walla kay sax mën nañ caa bañ am accès ndax fikra dafa am solo mooy de xalaat suñu borom subhanahu wa taala waaye mbokk yi ñaan am na solo yonent bi nee na duwaa silaaxul mu'min ñaan mooy ngan nay jullit bul dem ci ay njabar bul dem ci ay maaman desal boo amee soxla nga julli ñaar rakk ñaan yàlla sa soxla mooy doo awul euh, euh, rakaatayil xaaj gaaral yàlla say soxla ndax moom dongay mayee lii mooy limitu bilaad yi bilaad waaw dese nañu doxub doxub genn wàllu bés dëkk yaa ngi noonu nag misra fii la yem fii mooy euh, frontière yi soo ko jéggee rek da dem misra Égypte man gisuma ñuy garder frontière yi Saam ak Kanaam ak Xijaaz ak yeneen dëkk yi waaw ñoom dañuy def ni ñu kii amul ay limite lu leen neex lañuy ñuy def waaye Misra moom dafa am mbir mu rëy dafa am ay frontière yoo xam ni dañ koo teg am na ay ay ay soldats yu koy garde ak di ko en secret firaaw yi nekk foofu ñoom ay kilifa yu mag lañu woon nii la noonu niil bi bàyyi leen ci xel Seydina Omar am na lu mu ca defoon nag yow yàlla sama borom maa ngi wéeru ci yow di la ñaan nga dimbali ma maa ngi bëgg a dugg ci dëkk boo xam ne xaw ma fi nag yàlla kon wéeru naa ci yaw cey daa bi bi eh, daa bil qalb daa rabbahu sirriyan waaw ñaan na boromam mbokk yi yàlla ku ko yëg dong la bëgg suñ borom ak a bëgg ku ko yëg moo tax di wax ci kaw di wax ci suuf qul ud'u llaha aw rahman ayyama tad'u rek falahul asmaul husna waaw ud'u rabbakum tadarruan wa xufiya innahu la yuhibbul mu'tadin waaw kii ñaan lu am solo la parce que nim leen ci génne yàlla nee ñaan leen ma ma may leen ud'uni astajib lakum in alladina yastakbiruna an ibadati sayadxuluna jahannama daxil aw kama qaal ñaan leen ma dinaa leen may képp ku réeralu bañ maa ñaan naa la Yuusuf fii la fii bunt bi la ñuy jaar dugg Misra muy Égypte léegi lépp lu ñuy def dañ ci waxtaan ak moom allahu akbar gars yi gi dañoo gën a wér xoola góor gi léegi wér peng sooxatul defatul dara waaye def nañ ci moom commencé koo xamal yàlla subhaanahu wa taala commencé koo xamal ni kiy faj nit bu feebar yàlla koy faj nit bu tawate yàlla koy faj yow sama borom ba tey maa ngi lay tàkku di la dénk sama bopp ak sama yaram awma kenn ku may àndal ku dul yow dëkk yu yéeme yaa ngi nii yàlla yow dong laa àndal ànduma keneen allahu akbar cay waaye nga tey nga gis ba tey ñaan rek ñaan rek ku jaaxle ñaanal yàlla bu ñaan kenn ngal la waaye bu ñu dem ci maaman yi bu ñu dem ci xar fuufa yi yooyu dalay gën a tardeel ca doo am li nga bëgg lay doo am li nga bëgg udu allah wa antum muqinuuna bil ijaaba taxaw leen yéenay ñan fan ngeen jóge man maay Malik ibnu Zaar man maa jóge Babil léegi day xool ci liste bi ndax turam a ngi ci bu ci nekkee rek ñu bàyyi ko mu jàll ñu war a commerçant yi am autorisation dugg ñëpp seen liste ngi fi seen tur ngi foofu topp leen seenu yoon ngeen doxal continuer leen waaw waaw uduu rabbakum wa antum muqinuuna bil ijaaba ñaan leen seen borom ca ngeen wóolu ne da leen di may waaw waaye boo demee ci maaman yi xërëm yi moom njabarkat yi yàlla da lay mere ñu bi dala bàkkaru ko bokkale boo ñaanee yàlla du la may ca sa soxla du faju ndax xam nga ñëpp ndax dañ leen a xam xam nañ leen waa xam nañu koy ñun dañ fiy ñëw di def eh, commerce njënd ak jaay dëkk dëkk dëkk bu yàgg a yàgg la moom it kenn du ko tàkk lënkaleeg dëkk yooyu ñu jógee waa seen yére yi ñuy sol dafa raar ñii yor termos yi seen bopp yi ñoom ñooy garde fii ñi koy tuddee dëkkub ñu texeñ loolu melokaan la benn tinnin maanaam masque boobu ñuy sol wala kab boobu day wane ni am na lu leen di aar benn dranko bu mag moo leen di aar wala benn jaan bu mag moo tax ñu def ko noonu ci seen bopp yi waaw nga xam ni dafa nekk euh, ci ñoom loolu ñuy tuddee patrimoine national niil tamit ci patrimoine la mi ngi noonu ngeen ko gis dex bi dex dexu niil bi moom la Seydina Omar benn bis dafa taxawoon dex bi doxatul Seydina Omar ñëw ñu ni ñun waa lu tax dex bi doxatul ñu ni moom il faut nga yoole ko sànni ci xale bu jigéen wala dara sacrifice daal pour mu dox mu ñëw bind lettre jox leen ko ni leen sànni leen ko ci dex ba ñu sànni ko lettre ba lu ci nekk yow niil bu dee da nga doon dox jaamu yàlla di la jëriñoo ca yàlla tax doxal bu dee nag da dox ngeen sa coobare bopp taxawal rek do niil ballaat commencé euh, génne war ndox mu neex kon ci patrimoine yu mag yi la Égypte waaye tamit euh, montagne la ngeen gis muy hiram yi ah voilà ci kii la waaye Youssouf mi ngi xool image bu rafet ay jur euh, àll bu rafet voilà dex yi montagnes yi nga xam ni amul seen dëkk moo tax Malik Ibn Daari nee na ko fii bokkut ak suñu dëkk yële parce que fii dañ ko organiser ñun am nañ ay ay ay waaye mais ñun am nañ ay jur am nañ ay xar am nañ ay bëy waaye melul nii lii yàlla yi ñoo ko moom ñii wala sax ñi gouverneurs yi ñoo ko moom ñëpp dañ doon dañuy liggéey dañuy liggéey waaye amuñu ci dara ah yàlla misra yi dañuy lekk yi ko lépp seen yàlla yee ko moom yàlla moo bind lépp moom yàlla def ko pour boppam nag kon bu dee jur yi yëpp yàlla yee ko moom yàlla de moom moo bind lépp waaye waaye lépp da ko bàyyi jaam yi amul lu muy lekk amul lu muy naan kon gis nga ñu ngi noonu di dugg Égypte seen pyramide yaa ngi noonu waa ñii lu ñu def fii lii mooy yàlla yi dëkk yi nag mu muus yaa ngi noonu foofu lañ fi ay église la yoo xam ni dañ leen di sellal di di jaamu muus yi ñoom dañuy jaamu ay muus parce muus boobu ñu def esthétique ak muus yi suuf ñu ni ñoom seeni yàlla lañ dañ leen jox ñu lekk ak naan leen di jaamu cey <laughs> لماذا ترمقني هكذا loo may xoole nii أنا لست ممن يعبدون الهرم man du ma jaamu kii de muusi de فليس كل الآلهة كإلهك أنت لا عيب فيها ولا نقصان ndax sa yalla ji amul ben wàññeeku déedéet amu ci ku te ku tedd kon yow xërëm yi kii muusi mooy jaamu kii ba pare di lekk ah loolu de mooy raar ñoom seen yàlla yi daal mooy waru waruwaay yeeg bàyyi ma yeeg yooyu mooy seen yàlla ñoom loolu jar na ree ndeysaan xam ngeen xelawul gis ngeen ko léegi fi kon amul benn benn benn wéetal yàlla bu am fi jeexit yow na ngay moytu lool nag moytu la wax tawxid fii wéetal yàlla wala ngay doyadal seen yàlla ñoom xamuñu loolu de bul ñëw di fi wax yooyu de ah Youssouf kon est-ce que mission dana mën a jàll mi ngi xalaat ci loolu <laughs> tawxid nag moo ko fi indi pour wéetal yàlla jàngale wéetal yàlla bañ a jaamu xërëm bañ a jaamu ay muus bañ jaamu ay nit wañ ko nag Malick ni ko mooy dafay wax yooyu nag ndax ñooy moom xamuñu xamuñu loolu wala ngay doyadal seen yàlla bu ko mos a def nii la noonu di dex gu mag a mag bokk ci patrimoine national yi Égypte parce que dañu wax ne Égypte mooy ndax lii mooy niil bi may dégg mooy niil niil gu ndaw gi ci niil nag moo gën a mag bu mag bii bu ndaw bi la rek waaye bu mag baa ngi fële ndeysaan ñoo tax ñu ne Égypte est la berce de l'humanité waaw dañuy wax ne Égypte moom ak nite fa fa la fa la fa tax ñu koy sellal nii dañuy wax ni misra mooy niil dañ koy màggal bu du woon niil misra du am loolu la ñu wax ñoom moo tax ñuy màggal nii kenn xamul fu muy balle dañu wax ne yàlla yàlla dong yàlla ji doo nga koy ballal mais mais li ko daggee penku ba sow yëpp moom la kon dañuy doxee ci côté sow bi ci côté tips dëkk bu ñu wax tips fa la ñuy jaar euh, yàlla amul tips la dëkk gis nga noonu gis nga xaram yaa ngi noonu beneen côté bële fala la Maghrib nekk fa la ñi dee fa lañ leen di denc waaw montagne yoon nga gis ñu ngi ko taxaw tabaxal ci firawna yi Manfis mooy dëkk bi ci wet gi dëkk boobu fa la niil di bàyyi koo jëm feneen foofu la bawoo nag moo tax ñuy màggal niil di ko jaamu muy dex gi dañ koy jaamu yow sama xarit saa yuñ jaayee Yuusuf ci ñu am alal ñi ah moom de dina nekk ci jàmm ak salaam moom Yuusuf ñun tamit danañ am alal ju bëree bëri ndeysaan aka neexoon ñu bañ koo jaay waay ginnaaw nag buñ ko jaayul nag gis nga yooyu ngeen gis mooy gaal yi nga xam ni euh, dëkk bala ci ginnaaw ñi dee fale ñu leen di denc côté soow bi la ñuy jaare ci suñu ndejoor nag am waat bale dëkku ñu dee fala féete dex léegi ñi dee foofu la ñu ci gaal gi la ñu di yóbbu. côté bii ñu nekk nag tibtil asar yi tibti fi la nekk tikk tibs boobu fii la yàlla ji dëkk seen état bi fi la nekk gouverneur bi fi la dëkk fi la ah, fi la capital am nekk ñu ngi koy tuddee yàllay amul mooy borom dëkk bi xoolal tibs rek da nga gis mu sori lool mu xëcc lool dugub dëkk bu rëy la kon ya fii mooy tips fukk téeméeri bunt mooy téeméeri buntu waaw waaw fukki buntu doo nga fi nekk waaye ña fay dugg nag ñoo koy tuddee téeméeri bunt saa yu ñu delloo seen kër lañ ko tudde noonu waaye fukki bunt doo nga nekk ci dëkk bi ñu tudde ko téeméeri buntu kon am na lu muy bunt gis nga tips la ñu jaare ñu ngi noonu gis nga nag Euh, foofu tips fa lañ duggee muy dëkk bu maa ngi jóge baabil kon jàllal ndax yow xam nañ la tey gis ngeen dëkk bi day ni mu wuteeg fa ñu jóge waaye gis ngeen ni suuf fañ ko teg na mu kawee ña àndaloon it ña ca feebar ñaanal na leen ñu wér waaye lépp mu delloo ko ci yàlla xamal leen di daal du may faj yàlla mooy faj waaye Yuusuf gis na lu ko yéem dëkk bu rafet bu taaru yu sol yére yu rafet fii nag mooy marché bi commerçant yaa ngi noonu di wàcc seeni bagage cay ndeysaan ndeysaan kon fii la ñuy indi Yusuf muy Égypte euh, gis ngeen marché baa ngi noonu marché bu mag la foofu nag la war a jaaye Yusuf euh, xool nag euh, lan moo cay topp waaye Yuusuf fii neex na ko loolu lool ndeysaan kon Yuusuf génn na ca teen ba euh, topp nañ seenub dox jaay nañ ko Malik ibnu Zaar gis ngeen xew-xew ya ca xew ca ko doon dóor te loxo ma mujj seem waaye it gis ngeen am ko ñaanale gis ngeen góor gi nga xamee ni ndeysaan euh, mu feebaroon mu taxoog moom yërëm ko lool taxaw ko lool ba mujj ñaanal ko góor gi daldi wér ñu jaaxle lool lu waral lii mu leen yàlla dong yàlla mi shaafi moo ko faj ñun mënuñu lu dul def ñaan rek kon nga gis ni delloo ko ci tawxiid ne ni yàlla moom mooy maye mooy nangu léegi nag fii nii lañu war a defee nag seen escale gis ngeen jaam yaa ngi noonu ñu takk ñëpp ay jaam lañ ndeysaan hey allahu allahu akbar xam na nag fii lay mujjee tey ñu ngi ci kii bi gis ngeen ñëpp ngi nelaw kon wàcc nañ seeni bagage léegi nag agsi nañ Misra ci ci marché bi euh, Youssouf ndeysaan mi ngi noonu ñëpp a ngi nelaw waaye borom himma aliya borom itte ju kawe du bari nelaw ngeen bàyyi xel gént ga faleex géntoon ñëpp ngi nelaw ndeysaan fale gisatul Yuusuf ci wetam la tëddoon waaye gis na ko mu toog fële loo xewle Malick lu tax nelawoo yow Falih damay bañ nga daw ndeysaan cey wax ma yaay kan nag wax ma yaay kan ban ci mbindeef yàlla yi nga wala kan ci mbindeef yàlla yi tontoon naa leen ci laaj boobu yàlla ji ma gëm daa tële mënumaa jëriñ dara bokkut ak sa yàlla soo ma waxoon dara ci sa yàlla ji ak a neexoon nga wax ma dara ci sa yàlla ji ah loolu da koy neex allahu akbar allahu akbar innahu haadirun mawjuudun fi kulli aan sa yàlla ji mi ngi fépp wa fi kulli makaan mi ngi place bépp رأيت كيف أنك تخاطبه damaa gis ni ngay waxeek yàlla ni mu yombe mu lay wuyu بدوره يسمع نجواك te da lay dégg loo ko wax mu mu def muy nangu say ñaan ci saasi kon yàlla jege na la laa rayba indi annaka sikk sàkk nekku ni yow mii bokkoog yeneen bindeef yi de ñi ma xam ثمة قوة كامنة فيك تخولك فعل كل شيء am na daal looy def loolu ne li lépp loo xam ne du merloo sama borom ca laa nekk ma kon kan mooy sa yàlla jëlay dimbali foo tollu ما أجمل ما وصفت به ربي yow ni nga melale sama borom neex na ma dëgg la de أود أن أؤمن به dama kaa bëgg a gëm jaamu ko الله أكبر لقد آمنت لتوي gëm nga ko لا حاجة بك إلى تجديد kon jërul ñu lay yeesalaat ngëm آمنت حقا gëm naa waaw waaw الله أكبر قلت إن إلهي حاضر nee nga sama yàlla fépp la nekk وإنك تراه قادرا على كل شيء yow da ngaa gis ne it mën na lépp képp ku wéetoog moom mu ñaa mu mu wuyu la ca du nga xam ni sa nga wax ne yow sa yàlla dafa tële waaw loolooy ngëm nag annani bittu mithlaka muwahidan lillahi ta'ala kon wax nga ni dama wéet wéetal naa yàlla bokk naa ci tawxiid yi mu ne yow ba ma ñaanalee kële mu wér ci nga ci nga ci nga wéetal yàlla yow yaay kan kon limaada la tatakallam lu tax nangu woo wax anta abdun haribun fi zahir ndax jaam bu daw nga waaye dëggantaan ab sang nga de doob jaam de maa ngi waat ci yàlla mi di kenn ma pil nag wax jaa ngi bëgg a bëri bul waat ci yàlla yàlla waxul ma ma ma jox ma ndigal ma wax li ma dal nii dogalu yàlla la yàlla moo yuusuf moo wommat yuusuf andi ko fii am daa am lu tax ma ñëw na fi wax ma li la tax a ñëw fii uh, man daa xawma lu ma tax a ñëw ci kan ci fan yii di ñëw dana leer kon Malick du ma ko may mu jaay la dama ko koy tere mu jaay la moom la yàlla dara làquwul ci moom su dogalee ni danañ ma jënd man faa man loolu sama yoon newu ci bu yàlla dogalee nañ ma jënd rek baax na demal nga tëdd bul nang bul bañ ma bu jaam kon danga maa bañ a wax sa turu baay nee naa la maay doomu teen ba teen biñ la génnee baax na comme ni nga ko bëggee baax na bis dina leer bis dina ñëw mu leer ci man yooyaay doomu kan looma sayyidina Muhammad wa sallim denc secret mbokk yi baax na nit ki na denc secret ndax xam ngeen ni demoon na bay wax waaye ah wax des wax bu jotagul bu ko kenn wax jeex na ma ngoog